d'abord Idrissa Gana Gueye askanu Sénégal askanu Afrique ak nit ñi bëgg dëgg nit ñu bëgg ak liberté yépp ñoo ngi and ak moom ci lool té duñ ko bàyyi mu wet ci question bi waaye surtout dañu bëgg a xamal France ne ko France moomul nit ñi France moomul nit ñi te loolu il faudrait que ñu xam ko déjà boo gisee lii xew nii rek ci ngay gis ni véritablement am na loo xam dafa war a soppeeku France ñoom ñooy kan waxtu ne dañuy présenté comme étant ñoom réew mi nga xam ne réewu liberté lañ dañuy wax sax ñoom ni dañuy tere ku tere

réciprocité bi danañ ko appliqué fii ci Sénégal lépp luy intérêt bu France danañu ko boycotté danañ woo askanu Sénégal ñu boycotté te duñu yem ci loolu aussi lépp lu ñu yoon may danañ ko danañ ci taxaw ba moom ñu bañ koo néewal doole ñu bañ koo daan bañ a bañ a boole image am ci loolu du moom rek moo ko def wala boog li muy sénégalais moo tax ñu ciblé ko wala li muy africain la wala li muy jullit la wala li muy jullit la am na yeneen joueurs yoo xam ne def nañ ko Radon Falcao def na ko daaw

bind bataxal Idrissa gane Gueye diko wax ni ko legui na photo wu ak euh, moyen bi ba nopi tamit na def ben vidéo dama ni loolu ñong koy xaar duñu ko ko may bu ko nexé na ci bañ na lañ bañu soutenir ñom ils sont libres de faire ce qu'ils veulent mais mom on peut pas l'obliger de mais loolu waru leen bet il faut comprendre que il s'agit de la France France moy suñu badjan moy suñu serigne moy suñu impagne moy suñu mam moy suñu tante moy suñu lepp pensée unique bobu nga xamni lolu amone ci colonisation ba lañ Sénégal mais lolu la won woon ni na dootul am ci mi dañu melni ñun ay doxandem lañ ci réew mi déposer courrier donc lan mo ci waral ce dispositif là war ku